nee na di leen sant bu baax ci woote bii mu woote ngeen wuy si ko. te nii rek lañ nag lañ koy defee moom ci lu mu man mënti doon. nee na li mu soxla lu ne. su wootee. kenn xamul guddi na. kenn xamul naaj na. daañu ñëw. daañu ñëw. defal ko ko ni mu ko bëggee. ngir yàlla ak jëmmi Serigne Fallou. soxna si nee na mu ngi leen di sant. te di leen gërëm. di leen présenté nag. nag. sama doom. doomam. xaritam. xaritam. sama lépp. léppam. ànd ak sama beneen doom. ànd ak jeneen doomam. soxna maam bu sa Mbàkke. soxna maam sa Mbàkke. kii mooy soxna nee na kii dend moom mooy soxna Ami. di daas bu ministre. di daas du ministre. Dame Diop. Dame Diop. moom nag li ko tax a jóg. nee na moom nag li ko tax a jóg. moo ma tax a jóg. moo ko tax a jóg. moo tax a jóg maama mi démb moo tax a jóg maama mi démb ne soxna muslimatu Mbàkke laa ciy cité. nee na ku mel ne soxna muslimatu Mbàkke la ciy cité. bindu Serigne Touba. ndax kat. ndax kat. bi muy xàmmi. bi muy xàmmi. da koo fekkoon mu ne ci social. da koo fekkoon mu ne ci social. ak développement. ak développement. soxna ami mi nee na soxna mi itam. yàlla dimbali ko. yàlla dimbali ko. am lu mu ko dénk. am lu mu xam ne fii mooy dëkkub maamam. fii la juddoo. màgge fi yaroo fi léppam ne fi. mu xam ne nag loo la nga dàqee woon kéwél mu jëm àll. nee na mu xam ne nag li ngay dàqee kéwél mu jëm àll. na ko jëmee ci kër gi. mu indi ko fii ci Touba. mu waaye yoonu daaru nag. waaye yoonu daaru nag. nee na li tax mu di leen ko présenté. yàlla da koy doog a dogal tey. waaye Touba soxna ma xam nañ soxna maami mii. jigéen ñi Touba it xam nañ soxna maami. mi ngi bëgg a jëlee ndax mi ngi fi bëgg a jëlee ndóol. te mel na ni maama mi ngi ko ciy jàppale. te mel na ni maama mi ngi ko ciy jàppale. looloo tax nag. looloo tax nag. mu bëgg mu ñëw fii fi nee na moom it mu bëgg mu ñëw fii fi moom. mu leen ko. ngeen xam ko ngeen xam ko. xam naa ne xam na li ngeen bëgg. nee na xam na ni xam na li ngeen bëgg. ndax ñun ñëpp ay jaboot lañ. ay jigéen lañ. bëgg-bëgg bi benn la. te looloo ko tax a jóg. moo tax mu indi ko fi tey jii. di ko ñaanal nag. ak ñi mu àndal. teg loxo ba liggéey. ak ñi ko teg loxo ba muy liggéey. sunu boroom dimbali leen. li ñu bëgg ci réew mi. yàlla defal leen ko. ci barke sëñ Fàllu. nee na looloo tax nag soxna Ami mbooloo maa ngi nii. nee na du wax ne ay taalibeem lañ ay doomam lañ lay wax. nii mu la juree la ñu juree ñun ñii. xool leen te déglu leen ñu wax la li ñu bëgg. ak ni ñu ànd ak nee na loo leen wax nag daañu ko def duñ ca teg benn baat fii amul ñaari wax amul ñetti wax soxna mee fi nekk moo leen fi nekkal ñoom it ñooñu fi nekkal wasalaamaaleykum. dafa am lu loo xam ne mi ngi na dafa am lu xew loo xam ne mi ngi waaj a agsi muy ay loo xam ne. dañuy laaj dañuy laaj ay baat. soxna si nag. li mu ma wax ni naa ko wax. yéen ñii toog. mooy ñun ñii toog. ak soxna si fi ñëw di soxna Ami Mbacke. ak soxna si fi ñëw di soxna Ami Mbacke. ak Serigne Galas Kaltoom. ak Serigne Galas Kaltoom mu Alaaji Baara. moo leen jur ni mu ma nee na moo leen jur nii mu nii mu ko juree. ak ñun ñii toog ñëpp. mooy seen wayjur. mooy suñu wayjur. jur tax ñoom ñii. nee na looloo tax ñoom ñii. woowu leen fi ngir politique bii. woowu leen fi ngir politique bii. ngir politique bi nga xam ne ngeen xam ci ngir politique bi nga xam ne moom ngeen xam ci réew mi. nit ñëw. mooy nit ñëw. ngeen fal ko ngeen fal ko. mu def la mu bëgg def. mu def la mu bëgg def. am ay pouvoir am. ay pouvoir am. waaye nee na soxna Ami mii moo ko jur. waaye nee na soxna Ami mii moo ko jur. ni mu ko juree jur leen yéen ñii. ni mu ko juree jur ko ñun ñii. noonu la noonu la ko juree moom. noonu la ko juree moom. moom lii muy lii muy wut ci yéen. nee na lii muy wut ci ñun. am na ko ba noppi. am na ko ba noppi. ndax soxna si dong. ndax soxna si dong. mën na ko koo jox mën na ko koo jox. waaye dafa leen bëgg a waaye daf ñoo bëgg dimbali ñun. ndax moom ndimbal li ko war ci ndax moom ndimbal li ko war ci ñun. yéen waa koñ bi yëpp. ñun waa koñ bi ñëpp. soxna ami mii. soxna ami mii. daf ko ciy jàppale. daf ko ciy jàppale. bëgg leen a jàppale yéen. te bëgg ñoo jàppale ñun. moo tax mu dajale leen fi tey. moo tax mu dajale ñu fi tey. ndax ñoom ñii kat. ndax ñoom ñii kat. ñoom la yàlla dénk àddina. ñoom la yàlla dénk àddina ni ko soxna si waxee léegi. ndax ni ko soxna mi Touba waxee. moom moom. ndimbalam ci jigéen ñi. ndimbalam ci jigéen ñi. xaarul ba yor ay pouvoir. xaarul ba ay pouvoir. di ko doog a def. di ko doog a def. soxna si kat yéen yéen ak moom a dëkk. te soxna si kat ñu nag moom a dëkk. ku ne dana woote mbirum politique. ku ne dana woote mbirum politique. ku ne dana woote lu ne. ku ne dana ne. waaye yéen xam ngeen ci li muy dox. waaye ñun xam nañ ci li muy dox. moom itam xam na ci li ngeen di dox. xam na ci li ñuy dox. looloo tax. looloo tax. jotaay bii tay jotaay bii tey. ndax. ndax. moom kat. moom kat. ndimbalam ndimbalam loxoom loxoom musta jóg ci yéen musta jóg ci ñun waaye dafa am lu war ci yéen waaye dafa am lu war ci ñun loo xam ne moo gën a kawe loo xam ne moo gën a kawe te soxna ami mii kat te soxna ami mii kat fa mu nekk fa mu nekk gox ya mu dëkk gox ya mu dëkk def na fa lu ne def na fa lu ne mu bëgg nag mu bëgg nag mu ñëw ci yéen ñii mu ñëw ci ñun ñii amanteeg yéen amanteeg ñun xamanteeg yéen xamanteeg ñun yéen itam ñun itam bu seen mbokk nekkee ci dara bu suñu mbokk nekkee ci dara moom seen mag la seen lépp la. moom sunu mag la sunu lépp la. ndax moog soxna Seeku Jur ni mu leen jure. ndax soxna Seeku Jur ni mu ñu jure. mu bëgg. lépp lu muy duggati. lépp lu muy duggati. loo xam ne nit da caa war a jàpp. loo xam ne nit da caa a jàpp. kenn bañ leen cee jiitu. kenn bañu cee jiitu. rawatina élection yi. rawatina élection yi ñu jëm. ñu jàppale ko. ndax moom ndax moom. am njàngam am njàngam. mate na ko mate na ko. mu la mu war a doon. mu jiite la mu war a doon. ak juddoom may na ko ko. pasteefam may na ko ko pasteefam may na ko ko. yërmandee mi tam ci jigéen ñi. yërmandee mi tam ci jigéen ñi. may na ko mu war a mën a jiite. may na ko mu war a mën a jiite. moo tax mu bëgg. moo tax mu bëgg. ngeen jàppale ñu jàppale ko. ak jàppaleem moom nag. ak jàppaleem moom nag. soxna si la war. soxna si la war. te digal na ko ko. te digal na ko ko. dina ko def. dina def. te dina ko tàmbali tey dina ko tàmbali tey jii. léegi soxna soxna soxna Oumy nee na téeméer junni yi ma moo ko jël ci woo gim leen woo ngir boole leen ak doomam ji ak yéeneem doomi sëñ Fall du wax wax kese doomi sëñ Fall bu jëfee mu mat nee na yéen ñi fi nekk moo jox téeméer junni yii teg ko ci dox na soxna ami ni ko bala benn baat damay teral ñu tax moo eh, ku leen ku ku ngeen àndal ku ngeen àndal ku ngeen àndal waaw soxna Oumy bëgg ñoo fajal suñuy naqar bug ñoo fajal suñuy coona ñu boole lu ñu man ak lu ñu manul te jéem a ànd ak soxna Ami mii ndox soxna Ami mii kat barki démb dong laa ànd ak soxna Jenn ñu dem fee ci Alieu ñu ko fay sargal ngir liggéey bu rafet bu mu fa liggéey bàjjan nag amut ay caaxaan tey du caaxaan du jël kuy caaxaan du ñu boole moom kon nag li ci des mooy ñu am fulla am fayda xam ki ñu doon xam li ñu bëgg teg fa sunu tànk muy lan muy defa sunu yoon daaru gii te yit nag ñun moom amuñu lu dul kuñ jàppale Soxna Ami ñun amuñu ku dul kuñ jàppale te kuñ jàppale ku ne loo bëgg ñu def ko loo bëggul ñu bàyyi rawatinaa nag soxna mi Mbàkke Touba mi boole ñoog yow suñ toogoon ba mu nekkoon yéen ñëpp jug leen dem ànd ak Soxna Ami te taw dañuy ñëw ànd ak yow ndax jaral nañu ko mën nañu ndey mën nañu baay mën nañu boroom te nag moo ñu moom yilif ñu te fu ñu jëmee rek balaay sabri ñu jëm fa. mbokk euh, waa yoonu daaru maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sunu waajur suñu kilifa suñu soppe waaye suñu royukaay muy soxna ummi ibnu cheikh Mohamad faadal sama yaakaar tey ak ëllëg jataay bi nag am ñaari dayoo ci man bi ci jiitu rëy ci man lool rëy gim rëy ci man tax na ba lott naa ci génne kàddu yi ma bëgg génne ndax euh, xam gi ma xam soxna ummi dëggu gi ma xam soxna ummi kennal maamam gi mu kennal maamam suñu dajalee fii duma ko tudde politik dama jàpp ne soxna ummi dafa dëkk ak ay taalibeem yu mu bëgg a dimbali sedd yàlla bàjjan ma lay jéggalu toogaay bii ñu toog ak yow yaa ñu ci jox ndigal nag waaye amuñu droit sunu xel xalaatu ko nga toog ci kaw ñu toog ci kaw loolu ñu ngi koy tuub wala ñoo tàmbalee wax ci lu ñu fi indi diplôme duñu dendaleeg yow judd duñu dendaleeg yow bu ñu ñu joxoon cëru président de la république buñ la wuysee ci suuf la ñuy toog ndax loolu lañ seq ak yow maa ngi naqarlu lool ci sama xol nag fii ma toog dend ak yow waaye ndigal nga ma jox ñu nag ay taalibe lañ di jëfe rek ndigal soxna Oumy wax na ko léegi jël na ci alalam jox leen bu doon politique bu ñu ñëwee ñooy ibbi ci sunu gafaka jox leen waaye doomam la leen woowal alalam jiitu ci li ñu bëgg a def yeen ma am yaqin gëm gi ma gëm sëriñ Fallou xam ne ñaq doomi Serigne Fallou ji jiitu ci li may def ak yéen lu ma mës a def Touba li ma nar a def fii moo ko raw lu ma mës a tàmbali sama doole laa ko tàmbalee kon bu ma ñëwee fii tàmbaleeg yéen. ci xaalisu doomu Cheikh Moon Fadal man wóor na ma ni Aliou gee ñu doon wax barki demb te cofeel gu ma am ci waajuram tax ma dem fa di fa def li ma fay def bajjan na sa xel dal lu ma def Aliou benn dinaa ko def fukk fii bu ma leen ko waxee nag mën ngeen koo gëm ndax kii ma dendal yabu ma ko ba mu dajale leen fii ngeen jox ma micro tàccu yu neex ma leen di wax lu ma gëmul rus naa ko maa ngi leen di jox rendez bala moo yàgg groupement yi fi daje yépp nag soxna may lim na leen dinañ fi yabal ñu leen bind dinañ leen recenser dinañu xam lan mooy seen ay soxla ñun nag ni ko bàjjan waxee dañoo bokk ci njaboot gi mu di nattu cheikhul xadim maamam woote ngeen wuy ne ko aslamtu nafsi ngeen daje fii ndax jëmmam wuy si boobu ngeen wuy si nag mu am ñaar yu mu war leen teg yéen àdduna ak alaaxira ndax murit ñun bu ñuy jébbalu dañuy wax jébbal nañ la sunu bopp àdduna ak alaaxira àdduna bii nag defe naa ne dañ la fi won li tax bu laaxiraa nga mën ko gëm soxna mi wane na yoon wi ndax àdduna li ñu fi bàyyi mooy lu ñu def si sunu biir yi lu ñu def si sunu njaboot yi te lii mu leen woo foofu la leen jëmale taqale leen ak ndóol taqale leen ak xolli gerte taqale leen ak waas jën taqale leen ak yendu ci marché yi te defe naa Aliou gee nga xamante ne bii defuñu fa dara lu dul ci ndigalam ndax Aliou santu Cheikh Modou Fadal la ñu ne fa di ko fa liggéeyal te taalibey waajuram ya fa nekk kon bu ñu woowee fii ci yoonu daaru dañu def Aliou ba jigéen ñi ne gongo daañu ko def yoonu daaru bii ba ngeen de soxna ummi yéex ngaa indi sa doom. sant naa leen gërëm naa leen ah, di sant soxna Amy Mbacké bi xam ne nag lu ma jàpp rek jàpp nañ ca. mënu ma ci wax ndax su ma ci waxee sama ko day fees xam nga ndax dafa yàgg te man xam nga mënu ma wax wax ju bëri waaye sant naa ko gërëm naa ko sant naa nag liggéey ñi ma àndal ñëpp sant sama caat mi mu ànd ak sama moromam yëpp sant naa leen ndax boo jógee ñëpp a jóg <laughs> di jaajëfal Ndeye Mariam Diop Ndeye Mariam Diop mi xam ne jaajaf moom moom jaajaf ji sax naa mi Mbàkke ten na ko suñu kanam yàqalu ko dara lépp lu mu war def ñun mi ko koy def ak ñun suñu ko gisee ak buñ ko gisul ñu ko koy jaajëfal bu ko gisee ak bu ko gisul yëpp bu ko yëgee bu ko yëgut macha allah Ndeye Marème Diop di sant na sama xarit démb yi ah démb ji ba xarit am naa xale yëpp ko seetlu na allah sant sama lakk jee Mbacke Ball di am contentement lool ñëw fii contente bi nag li tax ma am ko lool ma kontaan ñaari yoon. bu njëkk bi mooy olof dañ ne ndax diw baax na doole diw baax na ñu ne ndax mbokk yi ñoo ko wax bu ma nekkee Touba boobu ba léegi di wër yen sax laa njëkk a seesi wante nag li olof di wax waaru biir moom toujours day booy moo leen dal yéen nag bu ñëpp dee amit bu yéen yéen ngeen a ñàkk te du jëm kaw kon loolu moo tax boobu ba léegi gise bi amul wante li olof di wax genn golo gudd na waaye lu ca laal borom yëg ko moo nekk sama digganteeg yow. sama digganteeg yéen sama digganteeg yéen nag ami nekk ci mën a doon man mën a doon yéen ñi fi jël kàddu ñëpp mën nañoo wax ci sama tur mën nañoo wax ci tur ami kon dara génnuñu parce que bu ko sang juree sëriñ Mame Balla jur ma ñu bokk ndey baay mu may wooteel defe naa loolu dafa baax mënul ñàkk nag ndax sama jaam la sama baay ndi jaayam la te moom sa jaam gi la jël jarul jarul mag gi ñi fi daje ñëpp nag kenn ku ne xam naa li nga doon ci man kenn ku ne tamit maa ngi lay jox sa wàccuwaay sama itte su ko mate woon kenn ku nekk fa nga nekk dama la fay fekk ndax loolu moo jaadu waaye xam naa ne nangul ngeen ma sama ñàkk itte te liggéey waral ko nangul ngeen ma ñàkk gise gi ngeen di ñàkk gisee ak man te xam ne du sama coobare nangul ngeen ma ñàkk a jot gi ngeen may ñàkk a jot tamit te sama liggéey woote ko ndax kenn ku nekk ci yéen su doon seet ne kañ la ma mujj gis wala kañ la ma mujj a jot maanaam jotaay bi du ma nekk wante jàpp ngeen ne fa ma nekk yéen laa fa nekkal ndax ñi fi toog ñi ci ëpp kë sëñ Balla lañ dëkk te amuma lu ëpp kë sëñ Balla kon fu ma teew yéen laa fa teewal di gërëm mbokk di gërëm xarit ñi fi toog ñëpp ku ne xàmmee naa la ku nekk bëggoon naa jaar sa tur wante defe naa ne jataay bi mayewu ko ku wax Touba wax guddi ñu fi toog ñëpp bàyyi seen ay njaboot kon saa fonte bi li ma doon bëgg ku ne ma jaacu turam ku ne ma fekk la fa nga toog nuyu la wante waxtu bi mayewu ko di leen gërëm di leen sant di leen xamal ne yëg naa engagement bi ngeen am ci sama wet sëriñ Galas barki dem bi mu ñëwee ci meeting bi waxal na ñëpp bu ñëwoon moom kese doy na sëkk. bu ami sang ñëwoon moom kese doy na sëkk du ma ñëwoon moom kese doy na sëkk wante kër sëñ Balla kenn desul ñëpp a ñëw ñi mënul woon a ñëw sax ci yoon bi la tawtee loolu nag yéen yéen a baax wante man matewul ci man yéen nag li leen war sama diggante ak yéen yëpp yéen a ngi koy def may ñaan yàlla gën leen dëgëral gën ñu dëgëral ba li ñu yéene ci mbokk yi yéene ko ci jàmbur yàlla mottali ko xale yi seen mobilisation keroog. mention spéciale sëriñ yaak say xarit eh, kenn ku nekk ma bëggoon a jaa ci turam jaajëfal la kontaan naa gis naa ni ngeen taxawee defu leen ko rek keroog campagne bi depuis camp depuis defu leen ko rek keroog bi depuis campagne bi commencé ba léegi eh, yéen a ngi mobiliser wu nekk sama wet li ngi ma jaaxal rek mooy balak mayo yi ngeen wax fu ngeen koy fubbale waaye dinaa leen booleeg Ndeye Marème comme loolu mooy seen soxla. ne Marème dina leen jëndal maillot dina leen jëndal bal après nag ngeen lijjanteeg nag borom dëkk bi fan ngeen di fubale boobaa sama yoon nekkatu ji alors ami euh, maa ngi lay jaajëfal jaajëfal mbooloo mi nga àndal yëpp voté leen ma moom jarul ma koy wax parce que woor na ma du doon benn carte laay am ci yéen ñi lay génne kon li leen di xaar xam ngeen ko euh, nit nag fa muy tànqee su sañoon heure bu fa demee fekk fa dara man nag ci teenu président Macky Sall roote te defe naa ne su ma rootee damay sotti ci ndab ndab yi may sotti nag seeni bos bokk na ci kon nañu fexe ba teenu président Macky ba may roote ngeen jàpp ci ma fay fekk dara ni ngeen ci mën a jàppe nag mooy li ñuy ut majorité à l'Assemblée national li tax ñu soxla ko président dafay war a nekk ba 2024 muy ñaari at yi ko fi dese moo war a gouverner ci dal war a gouverner ci xelam loolu nag majorité assemblée moo ko mën a may ci samay mbokk laa koy njëkk a yaakaar compter nag ci yéen su doon ne yéen a yor électorat Touba damay dem tëddi nelaw parce que wóor na ma kenn ku nekk ci yéen carte ba nga am yéene nga ma ko sama amuma ci xel ñaar amuma ci siki sàkk loolu nag bu jàllee li ñuy def mooy ay action wu développement ba ñu àndeeg yéen ba tey eh, lu ñu mën ñu ko ciy jéem incha allah dañoo toll ci di def ay café zone bi ñoom dinañ ñëw léegi eh, jox ndey mareem fukki junneeg juróom mooy li ñuy joxe ci café man teg naa ci ñaar fukki junni teg naa ci congélateur ay xool nag alors mareem dina leen jox cent mille bu subaa wala ginnaaw suba xam naa ñoom dañoo bëgg àdduna dinañ ko boolee ki caméra di leen wër di ko filmer ndax Marème moom deful dara lu mu àndul ak rajo donc xam naa ne dina indi caméra yi ndax Ndey Jóob mii nga xamante ni bii moom moo bëgg àdduna un mu ne ko wol presse bi moo tax ma xam ne kon congélateur bi dina leen ko indil tey lañ koy def wala suba nag euh, congélateur yaa nga alie keroog bi ñuy def sargal yi dañ ko bëggoon a génne mais taw bee taxoon ñu bañ mu yàqu seen bos dinañ leen ko jox euh, ngeen xool nu ngeen ko ànde liggéey li ma ci metti nag mooy ñu bari dam leen di gis ñuy jaay man nag su doon man di ngeen ci liggéey parce que loolu moo tax ñu jox leen ko benn congélateur ne bu ko mbooloo bokkee du neex a lijjanti wante comme groupement ngeen nga xool rek ñi nga àndaloon ak say carte de membre ngeen toog ba waxtaanee ko ndax tamit alalu mbooloo lu ñuy waxtaanee la kon maa leen di jaajëfal. Euh, di am contentement seen xaalis mu ngi ci mareem dina xool nu leen koy joxe congélateur bi aussi ngeen organiser euh, kañ lañ leen koy livrer nday mareem kon yaa ameel jigéenu marché Ocass wala gar bu ndaw congélateur ameel xale yi ay jeu de maillot ak bal loolu nag asaka sunu yéene la incha allah ñu ngi xool. neneen nuñ leen gën a mën a organiser ba ngeen gën a autonome gën a autonome nag Touba banque yee fi nekk di leble xaalis mën a sonal nit ñi lool ñun nag ñuy fexe ba tuut bi ñuy am di leen ko jox te mu leer ne boo leen tëddee nelaw kenn du leen woo wax si leen fay leen ma bu doon junni ñu jox leen ko moo ñu gënal jëli million banque boo xam ne du ngeen nelaw ñun duñu ñu nelaw loolu nag dinañ fexe jéem a renforcer. lu ñu mën ci lu ñu am mais lu ñu am tamit ci suñuy partenaire ba jigéen ñi nga xamante ne bi ñoom nga àndal te soo jugee ñu jug te ci ëpp di ay mbokk kenn ku ne ñu am lu ñu warloon teeg yow incha allah ñu xool nan lañ la gën a mën a dooleele ba ñoom tamit ñu gis seen bopp ndax politique nag li Chablaat doon wax euh, jëmu alaaxira fii rek la ci àdduna àdduna nag nit ñi dañ ci gis seen bopp loolu nag dinañ ci gën a góorgóorlu bu ko defee ba nga xamante ne bi ànd bi kenn du ko réccu maa ngi sant di gërëm mais mënu tëj te waxuma ci jàngu xale yi parce que ni ma koy waxee àdduna bi fi mu toll euh, dañoo mayeetul nit di wax jàngu ma te wóor na ma ni seen yaay yi toog fii bu dund doon kaset ñuy arrière bu ñu arrière dañuy jàngiwaat nit nag lu ko dal ba mu rëcc ko day fexe mu bañ a dal njabootam ay ndaw ngeen. ñu compter ci yéen pour tabax Sénégal man bi may toll ne yéen dama daan gàddu sama saak di jàngi di jóge ndaamaatu ca hôpital ba di dox ba daara xudoos ci sàq ma te boobu jamono neexul woon lool nag li waraloon parce que dafa am fu ma buggoon egg te fi ma egg tey saxuma fi dama fiy jóge ñi may war a remplacer war a génn ci yéen ñi mais loolu nag li ma fi ma jaar foofu ngeen di jaar fi ma jaar nag fenn la luxusuma aw ma baatin dama jàng jàng be li taxoon ma góorgóorlu ci dama nekkoon ak sama yaay mu nee doole maanaam ne ci ndóol suñ ko mënee wooye noonu ma fas yéene nag duma ma judd ci ndóol di ci màgget yéen tamit ngeen war a xam ne waroo leen a judd ci ndóol di ci màgget judd ci ndóol nag mooy judd ci ndóol nag xam nga mooy lan mooy mettit su dee añ ak ndëkk ak rek fekkoon naa ko suñu kër su dee néeg bu ma dëkk fekkoon naa ko suñu kër su dee sol mbubb fekkoon naa ko suñu kër mais loolu du dund doomu aadama nit da nga war a mënal sa bopp bu leen nekk ci seen wetu waajur yi ñu leen di jox añ di leen jox reer bu ngeen bëggee cent franc ñu may leen ko ngeen foog ne foofu la avenir bi yam Sénégal dafa am gaz Sénégal dafa am pétrole Sénégal dafa am zircon Sénégal dafa am or loolu nag ay ndaw ko war a def tabax boo leen xefee yeneen xeet ñoo nar a ñëw di ko liggéey ngeen nekk ca ay menebar taxanaa nag bëggal ngeen seen bopp beneen avenir bu dul boobu pour nag participer ci développement réew mi ci tabax Sénégal ñi ci nekk école nañ ci góor góorlu ñi ki nga xamante ne bi yàlla ci dogalam def na ñu am jafe-jafe ba bàyyi wala lu tax nañ dem jàngi métier parce que commerce du métier dama koy wax toujours xëy rek jaay ñoom day jóob ñii mën nañ ko barki démb teg tubale nañ ma benn marché ami Mbàkke ca kër baylaat marché ba dafay toog ñëpp dañuy xëy génne seen kër rek teg table jaay dem ñibbi loolu du métier waaw xaddi nee na fa lay jaay géej ca marché ba ma bëgg ngeen nekk ay cadre nekk ay fonctionnaire ëllëg fi ma nekk ta nga xamante ni bi damay retraité ma gis ay doomu Touba ay doomu gaar bu ndaw mais ay doomu marché Ocass samay jarbaat remplacé ma fa te lu mën a nekk la loolu nag dangeen koy gëm góor baax na jigéen baax na surtout yéen xale yu góor yi seen yaay yi dañuy sonn ngeen leen di gis ci kër yi coono boobu nag seen yaay yi di sonn lenn rek ngeen leen mën a noppale mooy fexe ba école yi ñu leen dugal te di leen fa jàngaloo di leen utloo ay diplôme ngeen fexe li ngeen di jàng ngeen def ko seen bopp yi